cum sunu e brigadier bu ñaawul waa ngi nii. ay boy yow a garaaw. yow yàlla yëgal leen bi per la ngeen kii Ablaye Wade war na ko ba mu ñëw. daal koy defar ordre de mérite. grade dañ la ko war a taxal. ordre de mérite. mérité ko mérité ko nag. mérité ko lu ne def na ko si dëkk moo tax man may la pooj ba. yaay sunu xarit ñoom. ren gàncax gàncax gàncax ren gàncax seen daje tey neex na ma. booyal tegal waa tegal. ba Daniel bi. rëy rëy rëy non toj ngeen fii. ay booyal garaaw gerte. mais ba léegi yéen kii ngeen quoi yem ngeen. bàyyi ngeen affaire sàcc ak triande ak yu bon yooyu ba ngeen ko booy. léegi politique rek lañu bëgg. ah attention dans ce cas nag yéen ñu jara yem ngeen. te ah. booy booy politique bi doy na waar de. Ah. politique bi booy da ngeen gànnaaw de. xeer yeeg yàgg yàgg bali booy. attention de. non Sénégal ñaar fi nekk. lan politique wala lamb ji. waaw waaw man boo ma gisee ni xam ne aw ma doole yu bëri. kii tamit wax na. maa ngi nii dugg ci politique bi. ah ji fer. ah wóor na wóor na beral booy bëgg naa ngeen yem quoi. avec ses potes. waaw tout possible. ah mais nag seen daje pote sunu gaañ pote moom pote gi nii lii <laughs> mooy pote àdduna. pote waaw. Eh, may leen ma wuyu téléphone. wuyu sa téléphone boobu yow. lii allo. oui. <laughs> waaye ma ne ci loo nekk. non may nax waaye. waaye bul ma xaarloo di ma guddeel. ah yaa jaar. wóor na Serigne Touba maa ngi lay xaar maa lay xaar ñu defar ba mu tëb. <coughs> waa à suite. tëb mais poté maa ngi ñëw boo gisee lii ma foor lii tëbal ni la ma mbëggee fay dafa naan ma poté affaire bi fii maa fii ñëw toj fii naan ma cim seen fen la ñoom mhm. doo gis fen mu bon wax nañ ba yàq bari dose bari tiita yow poté kan man way kat ma ne bis bat mhm. nee fii jaar wuy ma boo paree uh-huh. ci ñun tëjal damay wax damay rombe café du ko fi naan xam nga yow koogal la waaye ma la sunu waaja ñu ci fee ba waa dañ dem woo mu yor oto ba. yooyu la ku mën a yow man yow mais yow. yow man tekkiwul dara si dëkk. xam ngeen ko. xoolal barki dem fii si corniche bi lañ ko doon arrêté ma ne 152 la dugal à l'heure ba pare xool fële yorul xaalis. xam nga ni kooku yorul ay ay nelaw. te li ma gën a métti li ma gën a métti mooy moom daa amul way. amul inspiration. baatu neexu. <laughs> moom way da koo wàcc. donc mhm. moo way ban way. moom moo way 18 heures. ah waaye toppatoo sa peut être peut être ñàkk nga fayda ñàkk fula ñàkk looy bañ de. peut être sa personnalité bi ngay incarné. elle est incarné peut être sa capacité bi ngay incarné. lay peut être sa dignité bi ngay incarné. peut être ana peut être. ah nekkoon nii waaye yow kii xam nga lu ma naqari ci moom. waaw jàngul jàngul. du dugg ci internet bi du déglu journal. rek xamul dara jàpp na. ma ne xaw naa ko saa waaw man man xar xaw naa tatat ne ma ma ne la déparé France Italie Hong Kong Chine Amérique ba biir New York ca Amérique la déparé Japon Sénégal Nigéria Algérie Burkina Faso manal ñebeetu la dëgg fennam tànkam ci au niveau international. xanaa Japon ak Chine ak Éthiopie ak ñoom Rwanda ak ñoom Namibie. waaw boobu la mën a dem wala Mauritanie wala Gambie. pour lan lu tax. lu war war ji ambal rek. gis nga. dëgg la xam naa ma la xamal ñaar barki démb jaay yàggu ci journal yi maa teg sama lii rek sama gémmiñ dégg ak samay nopp fa la nga xam ne moom moo di puut jenn joom nga ma joo xam ne ndaama la daan jaay. waaw. na ko tip. na ko teel. jikkoom la ndaw sa feeg weer bu jurul ñu robi ko. ku yóbbu bu ndaw la. ñu doon di deeta ñaajo. ko ne goo xam ne moo jaayal yaayam. darkase darkase nga xam ne amul bénéfice bu bari mbareel jàpp gore ga ma tiim darkase ja mel na kuy way darkase ji te ko darkasaay darkasaay darkasaay darkasaay ba ndaw sa miir te moom ne ñàpp te moom mënal ne ko tipp moom xam nga ne nag manel xam nga ne loolu kooku amul yërmande. bu ma seetee ba seet. kooku style man kenn la yore. dina sol daal yu rafet chemise bu rafet. waaye da koy non boo tax boo yéen xamul yéen daal yu rafet. mag nga ne ay synthétique rek lay sol. wax ju jeex mooy loolu musicien yi. rawatina manel yoruñu dara. dara yor ñoom ñëpp a yem. mbaxal bu fanaanee yàqu la fi commande. waaw waaw waaw waaw bàyyi rek ay eh! fii moom mbaxal suy fanaanee amet dina ko lekk. dara tekkiwul ko dara tekkiwul ko. namm naa la de dara. mais nekk si nga ñàkk ñàkk ku la ba te li ma di jaay delgase. waaw di jaay daamaraas. waaw xam nga xam nga ni nga ni ko pell ëmbal ko. yàq yàq soo gisee kuy jaay ndan ñaan ni ko ëmbal. te waxati ko dara. gis nga boo déggee ñuy surtout marel moomu. waaw boo déggee ñuy génn eh, eh. naan ñu ngi defal. waaw waaw démb bisaab démb sax na suukar. bàyyi ñoom bisaab bi. bisaab ci bisaab boobu yi laa jëm. ndax ba ki jant am na lu ma la nëbb de. gis nga ca France. moom maanaam ca boppam ca France. France xam nga tax doon fa dëgg tànkam. Missa Diatta waaw Missa Diatta moom ma daan doon këpp këppal ak kàmb kàmbal di ko këpp. waaw père père père waaw Diop Diop ay kii mu wax. Diop ay ma tànga di wax ba ma wax Diop. na koo nit ñi xam ko. waaw seen tournée yi ñuy tourné lépp naan dem Europe dem Europe góor di taxawaalu. ak dugg ci biir boîte yi. waaw nekk di summi seen këpp di ko këpp. di yalwaan. moom képp la musicien yi def ca Italie. bilaay def ca France ak maa ngi teg sama bët kenn waxuma. waaw mais yow mais yow mais côté bàyyi mu jàmbur mu wax. waaw Diop ndax da ngeen ma ma wax wala du ngeen ma ma wax. bàyyi ko mu wax mais Diop Diop daa baadoo la rek. waaw da ngeen da ngeen xam bàyyi mu wax Sénégal dégg. xam nga xamal ñaar yor na benn oto. benn kaat kaat bu rafet bu muy dawal. waaw nga dee ni moo ko moom ak manel courtier oto la courtier oto. waaw am nga courtier kër daa am. waaw manel courtier oto la. benn xaritam bu naan njanga ca ginnaaw ca Castor. boo rob boo boo wiiree Castor mel na bii bëgg a songu Bourguiba bi. moo fa yor parking bu oto. parking bu oto boobu yi mu yor. day jël oto di jox manel manel di wër di jaay. te naan moo ko moom. oto bu mu jaay am ca li gën a ñàkk mënal ñàkk fayda gi ñàkk fayda. Hmm. bu mu jaay xam nga lu mu jaay ñaari junni. waaw man la man way wàcc na ko. xam nga kay xaar ma jaaga. borom bi denc woo. <laughs> borom bi denc woo. ñaar bi denc ah, ah. ah. Samba Sow. waaw ñoo daan wañ. ñoo ñoo daan tim pour pour toog ci ñu tiim ko di ko tàgg di ko way ko tiim di ko tàgg di ko ba buur na bërit daal di jël jaaj jee takk sa ndigg la <coughs> wér ko gàlla ja daal di rot jaas ja war fas ba tey dañal yaa ngi ci démb bilaay di nga wuti geer ba di nga wuti geer ba àgg ñu der leen géwal ya der leen leen way géwal ya der leen leen way géwal ya der leen leen way ñuy xeex di rey géwal ya der leen leen way ñuy xeex di rey géwal ya der leen leen way ñuy xeex di rey ñooñu mu noonu ah ñooñu waroon waykat waaye ay Ali Farka Touré ah cam ah, xanaa xamoo sax ñi ñuy wax ñu ngi naan Youssou Ndour Youssou Ndour bu dul way de dara dara xamul dara xamul dara ñooñu mu noonu way waaye marali la. marali taxawaalu jàmbar jàmbar ak oto. dara di war di. Caga Mbaye mel ni mii naa ko oto. Eh, ñun eh, eh, ñun lépp fi doon fekk. kon xam nga loolu yow. lépp lépp fi doon fekk. du xam nga Caga Mbaye doomi doxal si seen. per moomu ñu de. per moomu ñu de per per per moomu ñu nag ngeen demee. ay yéen ñu wax. nekk ku ma xalaat ba <coughs> du ma waxtaan. ba du ma waxtaan. kon bi yéen a ko moom. billaay. waykat yu njëkk yi ñoo doon waykat. doon way. mais grand kii album bu bees bi dégg naa ko fi waay dégg fi mu ne nii. ah ah kon kii waykat la. la ah way yow. ah wuteeg sunu waaja sunu waaja daal manel moom la muy way. Mhm. kooku si démb ko ëpp ñam. billahi way. yow xanaa kenn gën télé bi yow doo gën télé bi. an moom mi. Ah, ah, ah, Eh, oh, jàngal na du sénégalais li ah. sa sant dëgg-dëgg nan la. Diop mais ISBAC la ñu. waaw mi ngi li may waxatee nii. xam nga ah, sant wala soppi sa tur da ngay gis ko tudd xaadim. waaw ñu tuddee la xaadim tur wu sell nga nga jël sa tur wa tuddee ko xaa. xaa koo jaar ñaan la xaa. xaa mooy lan. Hmm? tuddee la Mansoor. waaw tur woowu ak ni mu màggee nga jaar fenn ñu la Soo. lan lu muy tekki wala ñu tuddee la Cheikh Tidiane ngay jaar fenn ñu naan la xës. xës lan mooy xës. ba tiis. wala yooyu tur yëpp mooy lan. teg ci wu ñu tur ingrat. ñàkk fay te li bari nag surtout manal moom danaay dégg lekk mu xool mu koy way. booy soo te tiis ak yow. booy del del noo tudd yow. man manal laa tudd. baax na. kii waaye yéen est-ce que da ngeen xam mooy maanaam. mais c'est ça dama laa rejeté. man kay dama koy réglal sama bopp. dama xam ne rek li ma fi ñëw comme borom tur mhm. fii di fi xeex ak wala def yëf quoi. est-ce xam nga ni mën a is ba non. man de wax dëgg yàlla. Eh, déglu noppil yéen mais mais saa waay yéen yéen yéen. leen bàyyi di wax lu bon ci nit ki te xamu leen ko. Mhm. yow est-ce que ma gis. yow mas ma gis. déedéet ci kii laa la bësoon sa nag yow yow yaa ma tooñ vraiment. non non non non ndax man foogoon naa ne boo may invité damay ñëw fekk fii ay nit. mais vraiment fekk fi ñoo xam ne ñu ngi wax te xamuñu ñu wax et puis surtout weeru koor bi. Mm-hmm. yow nag booy je suis très content. merci grand dama bëgg nga ñëw sa moto ma defal la teraanga boo xam ne ñoom beneen ñoo ne dinañ jàng lu dul. d'accord fii di wax. ma ne wax mais yéen ngeen ne ku fi ñëw ngeen yàqal yéen nag yéen nag yéen nag gàcce tey weere ngeen de surtout yow benn weere tey. ah Diop Diop Diop wuyu ma Diop. ndax am ji yam ci biir gargote de. du fi yem tam naa dem ba ca net ba. waaw Agathe fere xam nga ni yaa ma dugal. tey ma di ma wax la man leer na la yow ne man ma kuy mën a. man tamit xaw ma kuy a mosuma gisuma ne ci àdduna xaw ma kuy mën a. ma ne li ma daan dégg ci moom wax ju baax ak def ju baax ak way lu neex way lu yee doomi aadama yi way lu jëmale sa kanam kanam yow la nga dem ma ne yow di nga dem dara la lekk ak rek di ma xas xoolal ma ne amul xas dara nga ne mottu ca bit jërëjëf yow nag li may wax ak yow mooy Assane tooñ nga ma tey daasam tugoon nga ma daasam mais yow pep mais yow moo tax daloo ma ne xamoon nga ne ma ne dina dikk xamoon nga ne ma ne dina waaye nit da ngay nopp nga bàyyi ma man xam nga leer na ma man damaa damaa mën a wax may tàntalee ka ŋàññi ŋàññi mën na ko dudd ko mën na ko ko rab jaare gannaaw ngàdd ko rab. mën na ko rab war na yet ba mu bëri dafa war a ànd ak dal wax nga ba mbóot yi génn ci sa gémmiñ gi yow mbóot yi nga gis barki de boo jaay wax naa ba kañ ci pële taxaw di ma tàgg te noppi wax nga ma dagoo sa carte consultation nga ma may tàntale ma ne war a toog nit ñi defaraat la fi mu nekk danga yàq yow dañu war a tas pièce par pièce freiné sa esprit li ngay wax du sa âge yow xamoon nga Manel mi yow nekkate sax mosoo gis photo Manel man kay man kay damay biiralee ndax kese xam dama ko mës a gis ah. waaye kon li nga doon wax yëpp da nga doon évaluer. man kay damay nit ku bon di nit ku tekkiwul dara a fen rek man mii maa bon. man xam naa sa bopp xam naa ni moom man man tekkiwu ma dara jaadu la man nekkewu ma fi lu dul wër di mbel mbeleeka taltaleeka ŋàññi na ku lekk rajo di taltal di wër di fen rek loolu dong laay la gën. yow doo nit sax amoo njëriñ ci société bi nga mel na janax. peut-être nga ne kan mel na janax. juy nàmp nag ngay nuróol parce que màggoo. ndawoo jarax bi jarax nàmp. parce que dëgg par la ba bañ tas nga Sénégal.